asalaamaaleykum waa àddina tey ñoo ngi fii ñun waa Gueoul TV Art ñëwoon fii dëkk bu ñuy wax Thialy Mor ñëw fii pour représenter ñëw ci ziar bi ñëwoon nag tamit ci ubbite jumaa bi kon nag ñu ngi leen di fas yéene présenter li nga xam ne si nii moom mooy ubbite jumaa bi ni ngeen ko gisee li fi xew yëpp nag dina di ngeen ko am incha allah rabbi Buranın dëgg jilu sëñ bi ci jumaa ji nag waaw mais teelal mënoo leen dëgg jilu sëñ bi ci jumaa ji nag xaaral rek Thank you. الله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبحون ملك القدس عزيز المقدس أعوذ بك من الروح منه وآية من أهل الكتاب وإن كان من في ضلال بهما تنفعون يا ايها الذين امنوا سالوا الانسان يكفر حسيب اسبك لا يصر البيع ذلك خير لكم وانتم تعلمون بسبب يسال نفسه بفضل الله فاذكروا لها كثيرا تفلحون يسال زياده وله تنفضوا اليها وتركوها قائما وما عند الله خير من لهم من التجاره وله خير الله اكبر الله اكبر الله ربنا ولك الحمد الله

Dera, duo, duo. Duo, Dera, Nisa. Duo, duo, duo. bokk taalibe yi dëkkandoo yi وطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع When are you look

jiite jumaa waaw mbégte bi de yaatu na lool ndax li tax mu yaatu mooy dama cee xam lu bari ci ñaar ñi ko séq muy sëriñ Moustapha mii ak sëriñ Moussa dañoo yàgg te yàgg gi nga xam ne yàgg nañu it lépp di lu rafet sëriñ Moustapha imaam di ci kaw ndigal sëñ Moussa ànd koog moom ñu yàgg cee jëf lu yaatoo yaatoo yaatu ba mu xëy wàcc ci loxoom nga xam ne léegi sëñ sëñ Moustapha sëñ Moussa kon loolu su ngeen ma ci laajee am na lu ma ci mën a leeral sëñ Moussa sëñ Moustapha jàmbaar la joo xam ne ku ne xam na ne bu bari woon ci yoonu murit euh, ngërëm li dana gën a yaatu ndax dundewul lu dul aw ñaqam diiney lislaam a ko ñor kon kooku buñ ko dee laaj ci lu ñu ci xam danañ ci sawar danañ ci rafet di ñaan liggéey bi yàgg lool ndax moom am na ndam ba noppi ndax man daal dina may wóor ne am nay ndam ci ay waajuram rawati nag sëñ Moussa mii xam ne moom la àndal ab liggéey ndax sëñ Moussa moom ko ànd ak moom mu xalaata sol aw daalam di la fekk si na nga war a ne am nga ndam lu rëy rëy ndax du àndut ak ku du dox kuy dox rek lay ànd saa boo rek du ànd yow boo dee dox nag jaral nga ko lu ne kon sëñ Moustapha moom di ko doolee ñaanal saa boroom gën koo dooleel ba lépp loo xam ne jóg na di ko liggéey ci kër sëriñ bi mu man ci ñëpp loolu rek lañ lañ ci amal lu ñuy di sant bu baax. yéen a ko gisandoo Jóg Jot na bu Mbawar. waaw ñu kàddu nga si mën waaw kàddu yi ñu ci yëkkati xam naa mooy jëkk am am mbégte rek di wax alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla nag julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cant gi ci topp moom kenn rek mooy ki ko yeyoo mooy sëñ Moustapha imam bu sëñ Abdou Khafour bu Thiari wax dëgg neex yàlla ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk Mbawor ñëpp tey siggiwaat nañ muy sunu sak yàgg nekk nag sunu sak waaye tey dafa gën a dolleeku ci jumaa ju mag ji nga xamante ne moom la defal fii yàlla tey te juma ku ko tabax ku ne rek yalla nga ko defal kon muy liggey bu am solo ñu am ci mbekté am ci contentement en tant que jeune en tant que ku dekk mbawor dal tay am fierté lool sëñ Moustapha jàppale ko parce que am lo xamantene mom mënu ko état moko man te fi ay doomu aadama ñofi dekk population bu am doole mo fi dekk wax deug yalla ñuy bay di sam te lool ku ko wax wax yoon wax bisri rar parce que tamit am lo xamantene déjà yakarna ñu nekk moment bi ñu nekk nii war nit ñi war nañ koo dépassé muy ñàkk ndox wala ñàkk courant wala ñàkk yoon woo jaar waaw bu ñu demee ba nekk vingt et unième Sénégal war nañoo dépassé lii nag dëkk bu day ni ci population ñu ne amul courant ak jumaa ji nga xamante ne moom la fi sëriñ bi def nga xamante ne ay ay la ak daara ji fi nekk ak population fi nekk mérité na courant mérité na yoonu baax kon ñu ngi woo autorité yi ñu ñëw jàppaat ci waaw jàppaat ci bu baax a baax a baax jéem a defal li nga xamante nag sëñ bi mënu ko ñoom ñu defal ko ko mooy indil ko fi courant indil ko fi tali ak tamit euh, indil ko fi hôpital boo xamante ne bu ñu feebaree mën a faju parce que feeg geewul kenn ku ne gis na sori waay bi mu sori piste rurale bi nga xamante moom lañ ciy def ak siwul fii te piste rurale bi rang ñi ngi ñaan ñu godrone ko parce que tamit Mbawor mérité ko sëñ Moustapha mérité na ko salaamaaleykum wa rahmatulah waaw waaw caari Mbawor am na mbégte am contentement ci sëriñ Moussa Mbacké kan nekk ci tund moom liggéey sëriñ Xaadim waaw tey waa Guelel TV daal ñu ñëwoon fii fi nga xam ne mooy ubbite juma caari Mbawol bi ak si ziar bi di la wax yan kàddu nga si war a mën a sànni euh, waaw kàddu yi moom ginnaaw buñ leen nuyoo yéen waa télé bi nga xam ne yéen fi ñëw euh, ak di ñaan suñu borom defal leen nam ci liggéey bi ak di rafetlu seen teewaay euh, kàddu yi weesuwul ak cant ndax cant gi moo di lan mooy liggéeyu Seexul Xaadim bi Euh, te ñun euh, amuñu lu dul sëriñ bi euh, ndem ku tedd ki nag amuñu ku dul moom li nu war mooy saa su ne ñuy fexe bay nekk ci li mu bëgg nu xamit ne li mu bëgg bokk na ci di sant yàlla saa su ne ndax bëgg ak cant ak nangu dogal ci suñu borom moo waraloon mu ne bu ko suñu joxee mu sant bu ko xañee mu munta sant kon ndem ñun moom la am faw na aw ca yoon woowa bu nu xamee ne faaw na aw ca yoon woowa nag leen nañu war muy jéem koo liggéeyal bi nu xoolee xam ne ndaw ñi bu ñu tollee fii euh, saytaane da leen di soxla muy àdduna euh, san borom itam soxla leen te it ñoo xam ne solution bu gën a rëy Seexul Xadim amul te ci biir solution boobu ay nit boo leen bëggee dimbale dañ leen di dimbale ci lu mu tollal ñoo xam ne tollaguñ ci génne téeméeri junni gun ci génne ñaar fukki junni kenn ku ne ci ñoom euh, ak donte mën nañ ko waaye li ñu war a njëkk a def mooy taxawu leen aar leen jariñoon jariñ leen doog leen a mën a jariñoo jariñ gi nag mooy lan yaxal na leen li ñuy am ba ñuy sawar ci di ci liggéey ci liñ ci war a liggéey dox seen diggante ak yàq ñu leen di dajale ñu jël seen fukki dërëm seen i ñaar fukk seen i téeméer di ko boole ngir liggéey la ko Seexul Xadiim euh, bu nu agsee fii ñu def ko ay ay ay ay ay bernde muy ñaareelu ponk bi nga xam ne bëri na lu ñu ci sëñ bi sonn soññ ndax bu ngeen xoolee Màggal Tuubaa dana na ngeen ma ci sant la yàlla nga xam ne ko dañ naan jaamu yàlla sant ak bernde Euh, kon ñu xam ne berne moo moo moo euh, tey lu am doole la ci yoonu murit ngir da ngay gis ne sax ku lay wax Touba euh, wala yéen mel ci berne yi lay njëkk a wax kon ñu xam ne dajale gone yooyu lanu am nu boole ko ak li nu man ngir liggéey la ci sëriñ bi ngir ñoom it ñu mën cee am ñaar seenu xol tàmm gum ci tàmm joxe aw ñam ak dimbale kun ëpp doole ak temps ban waroon a yàq di ko fawi jee ñu def ko ci suñu borom kon yaari yooyu mooy bëgg-bëgg yi nga xam ne moom lañ am ba dajale leen euh, cant gi nga xam ne rek moom loolu ma la wax rek ak cant rek ndax loolu lépp it boo ko boolee ak cant rek la te ñun alali Seexul Xadim la fu mën a toll rek danoo war di sant loolu kon daanaka moom rek lañ ci am ak cant naan ak Serigne Mahamadan Mbacke imam macha allah kàddu nii fi lañ sant ak ngërëm na ko gisandoo ñu ngi woon fii nga xam ne si nii moom mooy caari Bawol ànd seeg waa Guiru TV aar ñëw si nga xam ne si nii li nga xam ne gàmmu annuel la boole koog tey li nga xam dugg nañ si jumaa ji ki nga xam ne si nii mooy si Moustapha Imam jiite na fa wax fa kàddu yi rafet kàddu mbégte ak kàddu sant ak ngërëm jàll na fi nga xam ne si nii mooy si waa waañ bi wax nañ tamit ñoom seen kàddu yu rafet waa dëkk bi tamit gis ngeen bernde yi bari na macha allah kontaan nañ ci ñëpp Euh, dem nañ tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi wax nañ seen ay kàddu mbégte ak contentement kon sant nañ leen gërëm nañ leen di leen wax ni leen ñu ki nga xam ne si ni moom moo nekkoon ci wàllu animation bi di soxna ñaate saw géew kon sant ak gërëm ñeel